di leen sant waa Walfadjri di leen delloo njukkal di leen wax ni am ci kon ku ñuy rus muy yéen ruse seen bàyyi bu baax ba seet muy Sidi Lamine Niass ruse leen askan yi nga xam ni ñoom ngeen nekkal ruse ngeen bàyyi la ngeen doon def yépp ñëw ànd ak askan wi ci héritage bi nga xam ne moom la Sidi Lamine bàyyi Cheikh Bara nag moom dafa mel ni du benn nit a ko complot benn bëbi la boo xam ne dañoo xamul ni jamonoy doxe ñu ni ku demul école doo xam dara mu ni moom intellectuel arabe la bu dëkk ci réew mi bokk ak ñépp comme ni ngeen ko waxee léegi bokk ak man mi bokk ak Ousmane Sonko bokk ak ñépp ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax am sëriñ sëriñam fonk ko lool mbir mi sëriñ bu nekk wax na ci sëriñ bu nekk ñaan na ndax taxawaayu Cheikh Bara Cheikh Bara nekkul ci lenn lu ngeen koy siggee luñ koy xeebe kon du nekk wal fajir parce que bu nekkoon ci lenn duñ koy xeebe Cheikh xam nañ ci yow fu lañu day lu sa bàyyi nanguwuloon doo ko nangu mu nekkal nag askan wi di jariñ askan wi taxawu askan wi waaye dafa am benn nit boo xam ni ku ko jege ñu seet jéem na sàkkal bi bu tudd Ousmane Sow ku ni moo baax ñu xoole la bët beneen ku ni jàmbaar la ñu xoole la beneen bët pourtant yàlla de noppi na te waxul kenn dara lii ñuy def naan nañ libéré Cheikh Bara dañuy sabablu rek te sabablu dañ ko sant bu nekk waaye yàlla noppi na parce que koo xam ne bëggulaa teg bët yàlla may la ngay dund ba léegi te fu la yóbbu doyalul fu mu la yóbbu doyalul rajo nit mu toog ñu ne day yalwaan yàlla suturaal ko mu dem ci assemblée di fa liggéey liggéey boo xam ne convaincre na ñëpp te wax naa ko benn kilifa dama ne kilifa gi man bi ma nekkee ministre 2005 mu ne ma waaw ma ko woolu woon nga ma te booba fekk na mu politique ba nekk ministre te booba kenn xamul fu Ousmane ko nekk kon lii mu am yàlla ko ko may nañ ko nangu kon waxuma la moom ci boppam ñiy jéem nag laay wax ne ñiy jéem de fàtte yàlla noppi na dama ne la waxuma la moom ci boppam waaye dañ ni ku ku ne Ousmane Sonko reconnaître naa li ko yàlla def ñu faagaagal la loolu nag finalement dootul doon sa digganteeg Ousmane Sonko sa digganteeg yàlla la yéen a ngoog yàlla ngoog yéen ngoog yàlla ngoog yéen a ngoog yàlla ngoog te nag commencement la te Oustaz Assane nag war di wax nag war di dem te ndax dañ ne soo rëddee su yàlla rëddee nga far mu rëddaat nga far bu yëpp ca teg ñetteel ba ku muy far yow miy far lay far yow miy far yow lay far mu far jeex xanaa bu la faree wax ji jeex xuloo dootul am wasalaam. ñu ngi nuyu di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw di kontaan bu baax nag ci ki nga xam ni mooy Cheikh Niass ci li nga xamante ni amal na ko mu nekk loo xam ni eh, lu am solo parce que li tax mu am solo mooy. li euh, njëkk li nga xamante ni bii def na ko te te njaboot gi rafetlu ko bu baax a baax a baax a baax muy libéré Cheikh Bara bi nga xam ni def nañ ko ci écran bi mu nekk loo xamante ne bii lu am solo mu nekk loo xamante ni vraiment bi ma ko waxee poussé na moom trop euh, parce que dafa nekk loo xamante ni. Euh, am naa ci mbégte bu baax te li ma ci amee jabootu aussi tamit noonu lañ ci amee mbégte di ko gërëm bu baax baax di gërëm administration Walf yëpp ci taxawaay bi nga xamante ni bi amal nañ ko ngir ki nga xamante ni bi mooy Cheikh Bara Ndiaye eh, daal dee génn loolu vraiment mbir la mu am solo Cheikh Bara nag eh, man pareen saay bi ñu ko njëkkeetee biñ ko téye biñ ko téye bis yu njëkk yi man euh, affaire bi daf ma daf ma lool quoi parce que dama ne seen baara su fekkoonte ni yàlla dogaloon na euh, bi ñuy def émission ñu yamoon rek ci li nga xam ni moom la doon def peut-être lii lépp du ko ci fekk waaye nag bi nga xamante ni bi dem nañ ba delloo ko ay téléphone am delloo ko yëpp wane ni gisuñu dara dama ne ah kon de alhamdulilah rabbil alamin du lenn loo xamante ni bii wax na ko euh, moo ko dugal fi mu ne ñaan nag lu am solo la ñaan baax na trop waaye mi ngi am njariñ ci kaw maye ne fa parce que bu maye amul rek dafay mel ni ñaan njariñam day wàññeeku ma dama jàpp ni bi ñu xoolee téléphone yi gisuñu dara te ba tey waxuñu la lan lañ ko téeree ndaje bii nga xam ni moom lañ amal di ñaan pour ñu libérer ko dama jàpp ni dañ ñoo waroon sax di ñaan ngir Cheikh Bara génn au lieu que ñun ñu nekkoon bi ñun ñoo doon ñaan mais nit ñi nga xam ni ñoo ko téye Cheikh Bara bañ fee duma génn ñu ne ko ñu ngi lay ñaan ngir nga génn parce que dama jàpp ni bu fekkoonte ni def na gis nañ ni def na dara bu boobaa wax dëgg fa yàlla euh, ñoo war a ñaan waaye di moment que boobu ba nëgë ni téye nañ ko Euh, te yëguñu lenn loo xam ne moom la def vérifié nañ ay téléphone am ba wax ko ne ko defoo dara ci li nga xam li ñu gisuñu ko bañ may ko liberté provisoire ba mu war a génn appel soog a am pour ñu téewaat ko fa kon jàpp naa ni wax dëgg fa yàlla euh, loolu dafa nekk loo xam ne doy waar la tey suñu kilifa yi yaakaar lañ am ci ñoom ñoom amuñu lu dul ñi nga xam ni ñoom lañuy ñuy ñaan parce que fii ku jàq wala ku jaaxle dem ci kilifa diine yi mais bu dee dañuy jàq di dem ci kilifa diine yi du ñu gis résultat après bu boobaa non seulement ñu ngi nasaxal lu am solo ci réew mi parce que loolu nag dafa am solo parce que defe naa ni toll nañ fi benn période boo xam ni sëñ Muntaxa am na ñaan yoo xam ni ñaanoon na te ba ko ñaanee indi na dal ci réew mi si biir bu fekkente ne bi ñeneen ñi ñu ngi ñaan tamit euh, loolu dafa war a feeñ mais gis ngeen ni bërgi de boo njaay problème wal amoon na ko fi waaye wal fu jóg nañ dem ci sëñ Mountakha ba mu ne yëgu ko woon waaye incha allah danañ ci taxaw finalement gis nga def nañ li ñuy def pendant un mois bi nga xam ne moom lañ sanctionné woon ñu sanctionné ko télé loolu nekk loo xamante ni bi dafa mel ni dañu ne mayewuñu te pourtant waroon lañu mën a maye li am solo daal mooy nañu xam ni dëkk bi euh, ñaan kii ñaan nga may ko dafa am solo trop trop trop te dafa am lu bari loo xamante ni bi da koy defar donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi kilifa yi fekk rawatina kilifa kër gi. di wax ne rek xëy na bu dul woon ni président Ousmane Sonko nekk ci situation yu mu nekk nga xam ne daanaka même situation la que Cheikh Bara moom mooy ñëw taxaw fii tey wax. ndax euh, wax dëgg yàlla ni mu soppee ak ni mu fonkee jëmm jooju di Cheikh Bara Cheikh Bara yi nag dañu fees dell dell dell ci kaso bi régime yi fi jàll yàgg nañu dégg ñiy jàpp léeg-léeg ay benn nit di tëj waaye régime Macky Sall rek lañ gisee mu singali di jàpp ay doomi daara ay médecin ay journaliste maanaam koor yi nga xam ne kenn xalaatul woon laal leen te fii ci réew mi daanaka yi bëri yi nga xamante ne nii daf fi taxaw am fi doole lool ci wàllum koom ci wàllum média ci lu mën di doon ci ñoo xam ne dañoo jógee ci dara di góorgóorlu ba taxawal empire ay doomi daara rek boo doon xool quatre-vingt-quinze pour cent ay doomi daara rek ba ci kër gi ñu nekk bu ñu ñëwee nag singali leen ci ñoo xam ne kenn si ñoom deful dara lu dul ñàkk a d'accord ak ni système bi di doxee ndax ginnaaw Cheikh Bara ñu ngi wax ay kilifaam mais ani Cheikh Omar Bamba Diop dox dem seeti Ousmane Sonko lañ ko jàpp ah mu ngi àndaloon jàpp ma turam beneen sëtu Mbàkke Mbàkke boo xam ne dafa jóge woon vacances Turquie ànd ak moom mi ngi ci kaso bi loolu li muy firndeel mooy kenn muccatul fii ci mim réew kenn ku yaakaar ni homme politique yi rek la wala xëy na waa Pastef rek la mooy yow comprendre li nekk di dox nous sommes définitivement dans une dictature loolu lay bañ a dégg mais loolu moo am ci réew mi ndax dictature weesuwul léegi boo ne kii mbaxana bi dafa weng ñu jàpp boo postee loo mën di poste donte sàmm nga ba sàmm sa kàddu li nga poste sax ñoom buñ la bëggee jàpp daal dañoo mel ni ñu yor bii do rek kii faaw ñu jàpp ko ndax mooy joué rôle bii kii faaw ñu jàpp ko te suñu waree def seen ñaawteef dañu xool journaliste yi ñuy jàpp xool yan porteur de voix wala yan chroniqueur la ñuy jàpp xool yan pièce maîtresse ci euh, parti bi lañuy jàpp ainsi de suite c'est-à-dire que bu ñu demee ba cim réew plus de mille personnes daanaka boo jëlee ñoom ñëpp même motif yi lañ am nga xam ne tappale dugg na appel à l'insurrection atteinte à la sûreté de l'État acte xawma de euh, manœuvre et cetera wala association de malfaiteurs ñëpp même saa à léegi par loolu la ñuy dugal defeere nañ vingt deux démb defeere nañ douze tey ainsi de di dugg ci biir kër yi di luxati nit ñi ngeen yaakaar ne nekkuñu ci dictature waaw pendant ce temps ana ki taxaw ne dañu war a rey quatre-vingt-dix pour cent pour cent des sénégalais ana ki taxaw ne dañu war a rey Ousmane Sonko ana ki taxaw na ñoom di jabar ci dañ leen a rey ana ñi nga xam ne dañoo jël xaalis di ko soppi ana ñu doon defar faux passeport ana faux médecin yi mais lu ne gis nañ ko ci réew mi lu toll ni loo xam ne boo àndeek nguuru Macky Sall lu la neex def ko te dara du fekk mais boo nekkee ci beneen boor bi quand je beneen boor bi nag mooy su may wax nguuru Macky Sall jéggi na régime Macky Sall APR ak Benno Bokk Yaakaar système bi la te système bi nag lu nekk nga laxasu ca biir lu nekk koor ngeen xalaat mais boo ca nekkul bokk ci ñi nga xam ne yàlla may na leen seen xel mën a ràññee ba xam ne problème bi am nekkatul problème mu nit mais problème mu système la ngay taxaw di gën a leeral xelu Sénégalais yi loolu da ngay nekk cible. CEDEAO dañu wër ñu ne dañuy intervenir parce que dafa am ay coup d'état militaire et cetera mais coup d'état militaire du xëy rek juddu coup d'état constitutionnel mooy indi coup d'état militaire. wala ñu dénk lam réew nga war a jël doole ja teg sa loxo yépp ngir soppee ko nekkinu askan wi nga décidé ne da ngay jël doole jooju ngir tëcc ci askan wi ngir di mën a jël alalu askan wi di ko jébbal say patron yu nekk bitim réew ndax ku déglu média français ni ñu waxee fu mel ni seen news nga xam ne ñëpp xam na ne Bolloré ko moom l'un de plus grands chroniqueurs yi fa nekk li mu wax dafa leer il n'est pas France di bàyyi Niger parce que sinon ça ça devient catastrophique ndax politique énergétique gu France mais ci Niger la uranium Niger la ko basé noonu la melee noonu la mel ci Sénégal noonu la mel ci Côte d'Ivoire moo tax xool leen ñan ñoo nekk bi défendre ngir euh, ñu def euh, comment dirais ñu wàcc armée bi xeex ak Niger gis nga Afrique dañu yeewu. te ñoom war nañu xam ne amul benn doomu sénégalais boo xam ne d'accordul ci li ñuy def ñoom mu ragal leen lu toll ni tarfatal ay bu ñu yaakaaree ne mën nañu xupp nit ñi ba du ñu wax d'accord bu leen neexee ne kenn dootu fi marche bu leen neexee ne kenn dootu fi conférence de presse bu leen neexee ne kenn dootu fi ñoom mais loolu yëpp askan wi la neex amul benn nguur ak lu mu toll boo xam ne mën na jàmmaarlook askanam am ci ndam amul mais nag tant que askan waa ngi koy nangu jàpp ne kii la yegseegul ci man ay nañ dem rek li wér wóor foofu laay daanelee mooy ñii nga xam ne jàpp nañ leen ña ngay résister ci seen manière ndax du Cheikh Bara kese moo nekk ci grève de faim ba am ay torof torof animal ji mi ngi ci grève de faim bi ko yaayam seetee mënul yegg ci moom ndax ci situation bi mu nekk de loin la koy la koy la koy séen deful dara ñëw Sénégal ngir takk soxna war ci toog ab diir delluwaat ñu jàpp di wax ay waxi Kopar Express ay financé Pastef ñoom bu ñu xamoon que ni ñu ñëw eh, di créer emploi sénégalais yëpp bi ci gis seen bopp nga jàpp leen tëj ngir benn parti boo yaakaar ne jàpp nga ne li muy utiliser euh, plateforme boobu di def ay fundraising ak yooyu baaxul ci yow mooy ñoom léegi yeggatu waxatuma leen léegi créer ñu emploi mais léegi dañuy nasaxal sax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di créer ay emploi loolu nag encore une fois lépp mi ngi dépendre ci askan wi man foofu rek laa koy waxee ñun ku ci nekk dina bay waaram ca mu ko mënee ku ci nekk di nga mën a jël sa risque ba fa mu ba fa nga yem waaye li am solo mooy askan wi moo yor kàddu gu mujj gi moom lay neex dictature bi continuer moom lay neex dictature bi dàkk jërë ngeen jëf